ummatin bépp xeet amalum seen jëf summa ila rabbihim topp kat jëm nañ seen borom marji'uhum mooy seen delluwaay kon fa yunabbi'uhum borom bi sonoo leen bi ma kaanu ca lañu ne kon ya'maluuna di def ko borom bi ne wax sanu ci dëgg-dëgg giñ nañ billaay ci yàlla jahda aymaanihim dëgg dëgg seen ngiñ maanaam seet nañ ngiñ li gën a fort ci ñoom daal di koy ngiñ la in jaa'athum su dikkalee leen aayatun aaya la yu'minanna bihaa danañ ko gëm gën leen nit ñi gën a dëgg ne bu ak aaya ñëwee danañ ko gëm borom bi ne yonent bi kul waxal ne waay innamal aayaatu xanaa xamu leen aaya yi yëpp nag inda allahi ma nga fa yàlla yéen wa maa yushirukum ana lan moo leen jaat bu ñëwee laa yu'minuun du ñu gëm ana kan moo leen jox garantie ne bu yee ñëwee du ñu gëm kon nit xamul ci boppam dara moo tax borom bi nee na kat wa nuqallibu ñun yàlla ñun ñooy wëlbati afidatahum seeni xol qulubu libaadi bayna asbuayn min asaabii rahman yuqallibuha kayfa yasha moo tax ki dugul ci sunna bu goree kii mandi bu goree kii njaaloo bu goree kii def lu bon bu goree ndax yàllaa yore xol yi de heure bu ko neexee wëlbati waaw wax si nan la meloon barey xam nga fu mu mujj ci kibaaru saxaaba yi mu ñu bokk mbonam ga ko jàppoon avant mooy dugg lislaam ba rey Hamza loolaa ko dimbale ba mu rey Musaylimatu Kaddaab kon nga xamante ne nekk jub heure bu nekk lay am te kat ku nekk ci xare du ree ku ñu jàmm ku nekk ci géej du ree ku lab bu ko xeex naxante la moom na ñëw bis bu ñëwee ba gis yërmande lii incha allah dana sax ci sunna fexeel rek na yaatu yaatalal ko ubbil ko même buy julli di juum même buy def di ama amul ubbeeku ci kanam fu mu la soxlaa na la am. fu mu la laajee na am tontu soo mënta tontu yaatal ko xamal ko ne kat diine ji yaatu na nañu ànd ci diw mbaa nañu woo diw boo gisee ku néew doole jàppale ko su feebaree nga am loo ko dimbalee dimbale ko su amee soxla amul pexe jàppale ko su ragalee fu muy jëm gunge ko su nekkee ci yoon boo xamante ne ñemewul jàppale ko suñu koy duma xeex na ko jàppale ko ci lépp ba mu yëngu yaa ngi ci beneen jamono bu nekk bis boo nee am naa xam nga xam lu xam nit moo mel noonu. nit dafa am sa ci kanamu ki koy dimbale kon bokk na ci baa baabu daawa dimbalante loolu gis bu ñu ko bàyyee lu bëri dina yàqu moo tax yàlla na ne maa yore xol yi maa koy wëlbatee nun ma soobee bu kenn bàkkaar ba ngeen ni moomoon déedéet ñaanal leen ko yàlla li ngeen gis kat kadaalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum nii ngeen meloon yàlla may leen daal may leen ab xéewal moo tax borom bi nee na wa nuqallibu ñooy wëlbati af'idatahum seen xol yi wa absaarahum ak seen gët ya kamaa lam yuminu comme nañu gëmu gëmul woon bihi jëmam awwala marra bi yonente bi doog a ñëw Madina màkk kenn gëmu ko woon mais dem na ba mujj gi ñëpp gëm ko kon man mi defoon loola man yàlla mën naa la leen borom bi nee na wa nadaruhum danañ leen bàyyi fii tuxyaanim ci seen réer ga yamahuuna ñuy déngi déngi yàlla yàlla jàmmal jàmmal incha allah Hello. ci ñun nag gannaaw yàlla la yaakaar pour ñu jàppale ko ci te loolu ci lislaam la bokk te loolu lu mas a fees ci xolu jullit yi te bokkoon na ci melukaan na ci bokkoon lool miskin yi bokkoon lool yatim yi te yonent bi sala salam ay nit daan nañ ko topp di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan topp ko di ko laaj ba mu dugg ci ay xaaxaam ba sax mantoom mu ran ci mantoom yoo xam maa ngi leen su xaaxaan yii nekkoon àll dana naa jël lépp jox nañ ko moo ko dese dara saxaaba yi daan nañ wax ne ah, kenn suñu daan na ñëw ci suñu biir nee na dara yëkkati woon indi suñu biir lu dul alal waaye ci alal boobu indi woon day dem ba fàtte alal iman fester ci xol kon loolu melokaan bi di ci dem mooy ñëw la nekk seeni poos ak mbir àdduna loolu soxalu leen waaye lay jëriñ ñi dugg seen xol pour ñu delloo Allah yàlla mooy seen yitte kon jàppale képp koo xam ne nekk na si jàppale diis bu ñëwee ba yaakaar si jullit yi daa yëg ñoo seen xol daa koy te lii di nekk seen poos ñu poñetu àdduna feesul seen xol loolee ci laa ñu jàppale moo tax ñoom ñu daw si ñëw suñu di sàkku ndimbal pour ñu jàppale leen ci seen i jaw trop yoo nga xam ne moom la nekkee kon moom moo ñu yebaloon di wax mbooloo bi su fekkee ne moom la ku nekk def ci dara ñu jàppale ko ci participer ci dara daal ñu jàppale ko loolu euh, ñi ñaan yàlla dañu def ci nangu ah wala loo xam ne def ah alhamdulilah ay question yu takku na ñëw na fi comme ni ñu koy faral di waxee rek ñi saafara ñàkk réer moom mooy laaj yaakaar naa ñu ne Ousmane bin Affan radiyallahu anhu moom dafa mel ni joxe fi sabilillah moom moo ko may li mag mu ngi woon mu ñëw bis incha allah. alhamdulilah rabbil alamin la chaque ni li mu wax li mu wax dëgg la Ousmane bin Affan daraja bu mu am ci joxe la ko amee ndax keroog bi yonent bi ne man xafara bi lu raw ma falawul janna teenu raw ma bii nga xam ne daa tëjoon kenn mënatu koo gas ku ko gas am àjjana Ousmane moo financé lu gas ko. keroog gis na kisra yonent bi ne man jahaza jaysal usra ku dimbale mbooloo ñuy dem daa muñu doole yàlla fay ko Ousmane ca lay joxe di joxe ba yonent bi ne maa darra Ousmaanu maa faala baada al yawm kon joxe dañ ko fekk ci islam te muy lu jaadu suñu mbokk bu amee jaaxle am jafe-jafe dañ ko war a jàppale ndax ëllëg mën naa ñëw ci ñun kon wa baa joxe boo jàngee alquran infaq fi sabilillah aaya yi bu jeex du jeex benn yoon borom bi di ñaax di xiir ne yëkkati leen li ngeen am joxe wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah te li gën a doy waar saa boo joxe yoon a ngi ñëw pour ëllëg joxe moom borom bi subhanahu wa taala dogal na ne am na malaaka yu yeewu fajar ne allahuma aati munfiqan xalafan allahuma aati mumsikan talafan ki tee bañ a joxe yàlla yàlla na alalam yàqu ki jël alalam di dimbale moroomam yàlla yàlla am kon ci wàllu joxe moom fii sabilillah loola mise la bu mag a mag a mag naar yi ko xam tey suñu jàkkee ñoo ko financé suñu teen yi ñoo koy financé suñu robinet yi ñoo koy financé loola tey ñun fii am na ci yoo xam ne ñun sénégalais yi mën nañ bu yàggul dafa am jumaa yu ko doon ubbi ñu demee foofu jamaa ji dafa def woon mais bi ñu toogee wax ko benn waay mu yàgg lool ñu def ci benn ONG ab naar bu ko bi def financement bi ñëw ci jour bi bi mu ñëwee ci jullee gi fekk man maa ngi foofu ñu waxtaan ak moom xamal ko baa yu baax yi mu def mais biñ ñëwee jumaa ji ba pare dafa waxaat ni sept jumaa dinaa ko financé waat seet leen fu ngeen dem ak ñu ko soxla ma financé ko xool mu bëgg li mu bëgg yonent bi ne nag bu tabax benn lu tolloog kaafu picc sax ci jumaa yàlla fay la kon joxe kenn mënut a jeexal ak joxe incha allah daanaka mooy jaaru te jullit loolu la war a def incha kooku moom li muy laajte mooy ndax ndax jigéen rek war a joxe jigéen rek war a joxe. <laughs> non non non non moom bu ñu ko waxee jigéen la war mais góor it war naa joge joge góor nag mooy mën a kaf ak soxnaam bu amee naqar mu wàcce ko xam nga soxna sëy da war a mel ni politique bu Muawiya Muawiya da doon wax ni sama diggante ak sama noon bu ci kawar nekkee mu dàmb su xëccee ba yolobal su yolobalee mu xëcc ndànk maanaam. joneet góor ci biir kër mooy jàppale soxna si tey dafa waroon a bale raxas def leen nga ñëw ne ko noo soxna si baal tey ma raxasal wala muy raxas boobu ngay jël di leen kañ di teg fële gis loolu dafay xar su mahabba seen diggante loolu loolu loolu da koy jëmbat day jëmbat mbëggeel seen diggante léeg-léeg day kafal moom ci kaf yoo xam ne dana àgg ci xolam foo xamante ni yàlla rek moom moo koy xam kon du jigéen rek moom la jone war mais góor tamit parce que kenn du ko tuddee jange mais góor it daa war a jange pour soxnaam dog ko incha allah. alhamdulilah euh, mbokk bi li muy laajte moom mooy euh, en fait julli yi ñuy julli farata yi maanaam saar yi lay laajte yan saar lañ si war a tari daal. saar yëpp boo ci mën. aay si guddaay bi wala si gàttaay maanaam si guddaay guddal guddal bi wala maanaam euh, gàtt. gàttal bi daal c'est-à-dire masalan dafa laajte si. ndax dañoo war a guddal wala dañoo war timis bokk na ci gën a gàtt ci julli yonent bi moom la gënoon ci gàttal ci biir julli gee topp ca julli tisbaar daana ko julli suba daana ko waaye yi ci def da daan mooye lu tolloo fukki aay ak ñett ba fukki aay ak juróom daana def timis bi nag léeg-léeg sax nag doon na jàng wala léegi idaa yagsha léeg-léeg sax dem na ba ci am na timis goo xamante ni jàng na wasamaa i wa taariq nga xam ni gàtt na am na ci boo xamante ni it nag jàng na suuratu mulki xaaj ko kon yu mel noonu maanaam sóor maslaa nit ñi tamit daf ciy bokk maanaam maslaa nit ñi nag maanaam léeg-léeg nga xam ne ñun ak ñeneen bokkuñu woon ñeneen ñi ëppoon ci ñoom ay baykat lañu woon ak i sàmmkat tey fii ci ñun am na ci ñoo xam ne dañoo yore liggéey jàmbur yore sàmm jàmbur kon dafa jaadu ci imaam waxtu bu nekk mu xam fiqhul waaqi' fiqhul waaqi mooy bañ a téye nit ñi ci julli gu yàgg maanaam nga julleeg ñoom julli gu yem gu dal xam nga julli du njàng mu guddi ma lañ ci soxla mais dalut julli ga dana taxi nit ñi nga gën leen am waaye bu fekkee ki waroon a liggéey ñëw fi nga julli julli gi yàgg mu dem tardé mer mu ñu ko war rek dana koy sippi yow imam su boobaa nag dana tax nga nekk mu naffir da nga dana tax mu nekk boo xam ne dana daw jàkk te loolu du ko jar incha allah alhamdulilah mbokk bi nee na liggéey treize heures entre treize heures ak quatorze heures may pause léegi li ñuy laajte mooy ndax est-ce que mën na julli foofu tisbaar ak takkusaan wala rek ndax bu ñu duggaatee rek dix-neuf heures la la ñuy duggaatee dix-neuf heures la ñuy boobu ca ci baab am na lenn ci borom xam-xam ko na ñoo xam ne maye wu may ni daal bu fekkee ni léegi maanaam julli jot na diggante tisbaar takkusaan mën naa def jàmbu taxdim koo def ndax yonent bi boole na tisbaar tàkkusaan te feebarul demul fenn tukkiwul amul benn soxla ñu wax ko mu ne damaa bëgg noppalu noppal sama xeet même boo deful dara bu la neexee def ko mais ñu nag mu nekk lu bari bugguñu mu nekk lu bari léeg-léeg nga toog rek nga boole tisbaar ak tàkkusaan léeg-léeg nga boole timis ak mën naa nekk comme ci tukki mën na nekk comme ci sa coobare bopp mais bugguñu buntu boobu ubbeeku it nag yaatu maanaam dem ba ci yàgg tayee loola loolu tamit dañ fekk kon su boobaa moom dina mën a def loolu incha ñuy laajte mooy ndax juif yeeg chrétien yi nañu mayante ay lekk la incha bu baax a baax wa ta'amul ladina utul kitaaba hillun na ñu jox téere seen ñam dagan seen ñam dagan na ci yéen nag itlaa ko ne dañ koo xay koo tënk dañ koo tënk ba maanaam lu mel ni seen i togg seen gàllax yi ñuy def ak wala seen caaki wala ceeb nga xam ne dagan na nga lekk ko mais lu mel ni seeni rendi ya ñuy rendi te du rendi bu baax maanaam lu mel ni mbaax buubu yàgg sàngara yu demee noonu yow buñ la ko joxoon tamit loolu dafa araam ci yow doo ko def mais amaa loolu nag bu ko saxel nangoo nga lekk seen ñàkk wax bismillah ci rendi xarit taxut xar a ko fay surtout bi tamit nga indi solo maanaam bul ne kii chrétien la rek dafa rendi xar man du ko lekk déedéet ndax moom mënut a rendee yow na nga rendee xamul sa bismillah moo xam da ngay leen di xaram ne aaroo lii gaa wala leen lu mu ci mën di def bu ko ren de yow daal ceebu yàpp lañ la may li ngeen ci wulloowul la fu yàpp bu jógee xar la wala béy la lu mu doon bu dee baax bu baal mais yàpp xar la yàpp bëri ndax bam koy ren ne la ko mën ngaa lekk lekkal jeex na. alhamdulilah bokk bi jigéen ak sport lay wax lan si lan la si islam wax jigéen ñi def ay ay ay ay ay benn mbokk dafa ma ne dama bëgg soxna ma ne ko bismillah ak étudiant la nag ngeen baal ko bismillah mu ne na am ah, na am na njool <laughs> naa nekk de ma ne mu sawar daal ma ko sawar de moom moom ko liggéey dafa naan maa moom ko bëgg a jàngal taay bu wëndu ma ko ñun ñii ñu yore ku ci jël daal la duur ñu ko jàngal ko taay maanaam sa finance jigéen da nga am taekwondo bu gën taekwondo bi gën ci taekwondo yi nga bi da nga am jihaad boo balaa nga nekk ak maîtresse taekwondo dëgg mooy nga yar doomu ba mokkal alxuraan nekk jaam ko yàlla yaa mën loolu la ñu sant taekwondo ba ngay jàng man njëriñ la am lu mu lay yokkal te it sa domaine du sorul yonent bi mënoon naa bàyyi jigéen ñi ubbi bunt bi ñëpp jaar. mais biñ wax ko daf ko ne aleykum na jihaadu ndax soo ko te fii am ngeen xeex boo xam ne amul dëkk topp lu mu liggéey lu dul defar doomam yar doomam ma ngay tooñ ma ngay tooñ kon nag dem jàngi tay koon doog léeg-léeg boo waxee wóorul ak jamono nangam ak bañ a wóor toogal sa kër waxam na fi bu yëngu la ku la may fekk kon yooyee nag wax dëgg yàlla new ma bon na de waaye jigéen moom waru dem jàngi man dama wax ni carrément waru koo dem ndax dafa am beneen liggéey bu ëpp solo def loo ko loolu lu mel noonu te daane mi nag xaw ma ci la ne gars yi bu ñu ko de man de ku ma xam ne tey ku wóor nga moom moom moom faxas loos lu ma mun ba ñaari baat yow nga yëkkati tànk teg ma ko moom loolu fekk moo kon naa dem uti koo xamante ni nii moom ci ci la ci nekk ci mu sa wet man loolu laa bëgg mais yeneen yi moom daanaka jarul la forage gàpp waxoon dafa ñëw di labar ndaw si ne ko man may góor goo xam ne fu ma jàkkaarloo góor yi dog góor ñi dog seen baax ndaw si ne ko man bëgguma góor guy dog baax góor guy raaj leex di fóon laa bëgg defaroon ci keneen kon ah, mu ngi doon daal man de digle wu te it damay wax ni carrément du du lañ tax mu doy waar xasuma bi nga war a am pour jàng ko buntu boobu mënoo ko am fii ci Sénégal tëju bay tànk mën koo jàng da ngay dem sol jogging nga dem sol kimono ndax war nga koo sol commencé di sàmmi tànk di teg fële di kiyaama di xaw ma lu nekk di ko des. loolu tey yaa man de moom laay liggéey incha allah. alhamdulilah est-ce que mbokk yi ñuy laajte wala est-ce jox sa sa soxna jox kii par exemple deux mille deux mois jox kii deux mille cinq cent wala nga jëndal kii kii nii est-ce que loolu si ñàkk. kii nii ñàkk jëndal leen. am na ci lu jub ñàkk a maandu ak loo xam ne maandu xam nga doon loo jënd kii jënd ko ngeen da ngaa xëy ci kii biiram mette nga dem jënd ko ordonnance ndax da ngay jënd kenn feebaru kon bu loolu dépense bu dee ñoo bokk ci bu tolloo Dakar la ñu nekk ñoo nekk ëpp lay doon mooy ki am juróomi doom nga jox ko deux mille cinq cent ki am benn doom nga jox ko deux mille cinq loolu du maandu kon la toll mbir yi bu fekkee nag léegi dépense bi borom juróomi doom yi ak borom benn doom bi ñoo bokk lu ñuy dugg xëy na ci quantité teem ba mooy wuute su boobaa xukk mu mën naa nekk ku nekk ñu jox ko 2500 mais bu loolu rek ki ëpp ne moom mooy ëpp ne ci dépense bu dee dëkk la yu bokkul nag solo dëkk bu nekk na fa dépense toll loolu lañ koy joxe incha allah. kii jigéen la moom nee dafa am muy duggante mais moom solide la ki muy duggante waaye yaayam dafa tax. léegi moom nee na la nan la ndaw yaayam nee na da koy may. maanaam xëy na yaayam dafa ñàkk xam mooy li ma doon wax sànq suñu suñu suñuy comportement ak suñuy way yëpp. gis nga am na lay comporté say way jur soo bëggoon ku dul nit ñu may la ko xamul tax la nga leen wan la yaay neex naa nax bàyyi neex naa nax léeg-léeg ñëwal yaay kaay ma tee leen tuboo le léeg bu sël ko tànk yi frotté ko bàyyi rek xadiya mariam bi bu ci wax léeg-léeg dee ko jàppale di ko dimbale bu baax di waxtaan ak moom bu yàggee boo ko nee yaay jamono ni mu mel yaay ma bëgg a may kii sama mbokk la gaa bañu ko mais bokkuñu pas-pas te xam nga ne lii laa bëgg maanaam waxante ak ku mën a wax ak moom say mbokk ñu wax ak moom mais bul forcer naxanteel ak moom xam nga nekk sunnit ak nekk jullit wutewul mën nañ la may sa mbokk boo xam ne jullit la waaye du sunnit mais pour lu sàmm sa pas-pas yow mooy séeg sunnit bi moo gën mais sa mbokk nag bu fekkee sa waa kër dañ laa opposé ngir ni nii nga mel na nii bañ pour may la keneen ndax dañoo indi problème su boobaa sa papa mi ngi fi nga waxtaan ak sa papa waxtaan ak sa yaay say frère mi ngi fi xam nañu jamono waxtaan ak ñoom sama yaay kat bëgg na maa may diw man bañu ma diw sama mbokk la waaye bu doon sama fabu ñu may ma kii moom laa bëgg waxuma sax nga jaar ko ci diine ci wàllu àddina rek jaar ko fi nga naxanteeg moom amaan na dina wàcc bul fàtte it nag ngay julli di ñaan yàlla di di ñaan yàlla yàlla toj xolu mer bi yàlla ngi lay ñaan sama xolu ko ndax ci loo xamante ne bu ma ci duggee amaan na muy lor kon yàlla maa ngi lay ñaan nga nooyalal ma xolom ba li ma bëgg ci moom ma di ko am boole koog loo am nga di ko defal boole koog di ko jàppale boole koog bi ko jege bu yàggee rek la mu bañoon dana ko nangu incha allah. alhamdulilah li xaw na xaw na dund moom li muy wax moom nee na dafa dëkk ay waajur ni ay fétiche lañu gëm ay jabar a gàddaay a dëkkee wax fétiche fekk du fétiche léeg-léeg nit ñi wax njabar doom nga da ngaa ne ci kër amoo pexe sa gàddaay kii mën dafay teel surtout jigéen jigéen mën ta gàddaay su dee góor na nga xamante ni mooy am na waxtaan daal way jur ci ni lii yàlla da ko araamal lii baaxul yow sa wax bu ko déglu utal kasatu lenn ci borom xam-xam yi nga xam ni seen wax oyof na léeg-léeg di teg ci wetam te mu mën koo déglu di naxanteeg moom ba mu xam lii danger bi ca nekk bis bu xamee danger bi amaat na dana ko bàyyi. su dëgëree ne du bàyyi nag mooy sa way jur amoo foo jëm su boobaa mën ngaa toog waaye bis boo amee foo jëm nga xamante ni am nga moyen am foo jaar su boobaa booy dem it na dem di rafet waaye bul dem mukk ci ne sama papa la moo tax ma jigéen ni kër gi déedéet bul def ndax demee noonu dafay xaw a ñaaw mais maslaal négocier naxanteel jéem a waaraate waxal ak ñi mën a wax moom utal ay bunti yërmande nga jaar ci incha allah foo ci jaaree mën na fenn. alhamdulilah mbokk bi moom li muy laajte mooy euh, est-ce que bu rafet musulman waxuma sax cooy ko bu rafet musulman mais jàkka booy dem yëre bu rafet ngay sol parfois que ba mu xëy kun. defal ko ba mu jeex loolu li sama xaritu naaram yi wax xasaw naa tey xun waaw te dangay sol yére yu rafet jullit moo moom lu rafet inna allaha jamil yuhibbul jamal kon kay am benn problème alhamdulilah mbokk bi ci euh, soxna la moom xam naa dafa dugg euh, borom këram dana kontaan si moom nee na nan lay def ba ay karaw yu gudd daal karaw yu gudd mu fexe ba ndoxam siti bi nekk ci moom génn nit nga bu amee ndoxum si di karaw yi dafay dagg loolu na fexe traité wu bu fekkee dafa amee kurobët mu traité ko bu dee yaramam day tàng yaram bi di xasan mu traité wu fajum siti siti bu ñuul nag lay faju bu fajoo fajum siti bii am na benn kii boo xam ne baax na lool ci maye karaw maanaam xollitu soble soble yi ñuy def yi ñuy jaay ci marché yi seen xollit nga am ci lu tolloog wala ñaari ngëb nga teg ci laaj nga ut ci benn ngëb ci xolli bii nga jël lu tolloog cent franc karité boo jëlee cent franc karité nga boole leen bati leen ba mu jaxasoo nga teg ko ci taal pendant quinze minutes ba mu nekk ndox nga jël kudd bu ndaw ci habba sawda nga jël ko ak kudd bu mag ci zeyti zeytuun ak kudd bu ndaw ci fuddën fuddën bii jigéen ñi def ci seen bopp yi tànk yi fuddën boobu nga jël ko def bati ba mu baax togg ko noonu ba mu ñor nga bàyyi oo bàyyee ba mu dal booy tëdd nga diw karaw bi yëpp takk bopp bi boo yeewoo nga raxas ko ndox mu tàng jër di waat ko incha allah loolu boo ko def karaw gi dina ñëw fekk nag yaa ngi def faju bi ma lay wax maanaam di faj faj ci bi incha allah bu sibi bi wéree rek karaw gi dina ñëw bu neexee yàlla ngeen bàyyi xel tamit nag karaw dafa am ay nitam am na ñu bëri karaw ak ñu bëriwul karaw da xool seen bëri nañu ko war ni ko bëree boo toppee dana ñëw waaye buñ ko bëriwul it mënoo koo indi kon su boobaa toppatoo ko ba mu rafet toppatoo ko ba mu baax loolu moom mën naa nekk mais bu dul loolu moom boo bokkul ci xeet yi karaw seen karaw ba rek boo motul doo bëri karaw incha allah. alhamdulilah mbokk bi nee na waxoon nga fi nii euh, jigéen qualité yi maanaam war na fexe ba waru ko waru ko mel maanaam melukaan yi war fay siis ñaan maa ngi leen doon wax ni jigéen bu amee jëkkër ñetti sant yi bu ko santoon na ko sànni bu ko santul na ko wax fay fay sant la séeréer ñoo koy sant mais lan moo tax ñu ne na moytu fay fay buñ ko waxee ci jigéen da mooy génn këram dem beneen kër dem kër yaay kon na fexe ci biir sëy bi bu mu ci fay mukk mukk mukk même ku dee dee lu mu metti metti na muñ ndax génn dem sa kër yaay ñëwaat suba nga demaat ñëwaat su boobaa xas lay doon ñaan jigéen buy sëy du ñaan ñaan nag ñu tax mu doy waar góor da war a moytu waaye rawatina jigéen lekk ba lekk set rek moo gën ngay ñaan surtout say xarit jëkkër waa koñ bi ku nekk nga ñaan ko may ma cent franc may ma mille franc damaa bëgg nangam gis nga loolu ngay wax nit dina la may ba pare fu ne mu toogee la ko oh, jabaru diw ñaan rek kii dafay ñaan ba yàqu boo ko gisee sax da ngay tiit loolu jigéen da ko war a moytu siis jigéen warul siis siis nag moom mooy teg ñam fas sa kanam loolu mooy siis wala teg ñam ki gën a gàtt xel mooy ki ñam taage bu foog di bu ñëpp toogee di suur toujours yàlla da koy rufloo boo moytu balaa moo def ñetti dibi ñetti dibi rek moom mu suur kon su boobaa siis fay ñaan moom laa doon jigéen na ko moytu asma moom feebar la bu naqaree faj ndax léeg-léeg asma bu ànd ak bronchite dafay xaw naqaree faj mais bokk na ci xeet yi nga xamante ne dinañ koy fajee asma maanaam bu ut euh, xobu mango xobu siddéem xobu kii ni ñu ci bantamaare yooyu nga togg ko ci 4 litres boo ko toggee ci 4 litres pendant 40 minutes. di ko naan suba ngoon ak booy tëdd guddi bi nag moom booy naan guddi bi boo amee olive dégg dulyee ak olive boo gën maanaam xaaju gaz bi ngay naan nga def kuddu olive boole ko ci naan ko incha allah loolu moom baax na ci asma trop trop trop trop incha allah. alhamdulilah xam naa kon bu ñu duggee si question bi donte am naa yeneen question yu des wax dëgg yu bëri incha allah mbokk bi nee na dafa bëggoon day day leer si ay ñuy wax borom bi naan su ko soobal kenn du ko bokkaale loolu la bëggoon nee na nga leeral. waaw mais loolu kay leer na loolu kay nan lañ ciy leeralal damay bañ duggaat ci a mu indil na subha waaw xam nga borom bi li mu ne su ma neexoon kenn du ma bokkaale mën naa tekki ni su ma neexoon ñëpp dañu nekk jullit coobaram la léegi nag bul ni bul ni bul jël bokkaale bi mu tuddee ne yàlla la sopp ma bokkaale de loolu du dégg bi de dégg bi mooy imaanu fa kullun mu yasaru li ma xuliqa la yàlla daf ñu bind teg ci ñaari yoon boo jaarale ñu may la doole nga jàll mu appuyé kon fexeel nga tege ci yoonu ndeyjoor moom moo gën incha allah.